ñu mmh. ñu ñu ngi fay bu baax a baax Moussa Sow bokk nga ci membre bi nga xam ne mooy HLM ma commune lan mooy euh, seen taxawaay ci euh, boobu gox. waaw ñun euh, benn mouvement sentinelle la bu tudd HLM ma commune ñuy veillé ci mbirum gox bi mbirum HLM rek moo ñu ñor. Mmh. sans coloration politique sentinelle lañ nag. Mmh. pour mouvement d'alerte ci mbirum lépp rek lu xew ci mbirum HLM parce que il fut des temps. Euh, suñu kilifa yi maire yi. Mhm. problème su amee fenn dañuy ne secteur u diw kese la soo waxee diw nañu tudd te diw boobu si gox bi la bokk. Mhm. ñu jàpp ne nag HLM commune war na bi yëpp ba institution bi su defee naka su noonu ñun war nañ ñëw jege si ko laaj ko lan moo tax ngay def lii. Mhm. comme population euh, mairie il est là pour la population. waaw ñu indi benn synergie pour ànd ak doomu HLM yëpp. pour ànd liggéey suñu ko alors bi xeexu euh, xeex coronavirus bi ñëwee ba léegi ban taxawaay ngeen am ci xeex bi. waaw ñu ngi si am liggéey bu am solo bi ñuy def ak acteur yu nekk si biir HLM bi yëpp euh, ñëpp jóg nañu pour xeex zéro cas si biir HLM. Mhm. wante dafa am loo xam ne suñ koy xeex avec les cas communautaire dañ si war a ànd ak suñuy responsable mooy institution municipale bi. Mhm. mooy la mairie de HLM. wante ñu ngi def benn liggéey wante ñoom dama jàpp ne dañ ko bëgg salfaañe. nan ñoo ko bëgg a salfaañe waa mairie bi. Euh, waa mairie bi. ah ci yan tànk lañ taxawee. waaw parce que ñu ngi accom ñu ngi dem accompagner population bi ba ñu xëy def benn arrêt bu jógee ci gouverneur bi ñu ne dañuy tëj marché bi. Mm-hmm. du 4 au 12. wante à notre grande surprise ñu xëy ñu tijjul ñu marché bi. Mm-hmm. xawma lobby la kenn xamul avec. Euh, Euh, commerçant yi te c'est l'occasion amuñu ak ñoom benn problème mhm. suñuy sœur suñuy xarit si marché bi lañu nekk wante marché bi n'est pas indispensable mhm. marché bi jaayuñu fi lu extraordinaire lu dul yëre ak ay dàll te jamono ji kenn talul xew kenn talul dara mhm. ñu jàpp ne nag avec cas communautaire yi ak ñu fi nekk suñu bañee suñu bañee cas communautaire yi avancé si biir gox bi ñu ñun noonu lañ mën a taxawee pour xeex loolu. Mhm. ñu bañ ñu tijjul ñu marché bi. mais wax nañ leen wax nañ leen lan moo tax ñu ñu tii ko ndax gis nañu ne lu ci mel ni marché Colobane marché Tilène ak marché Gueule Tapée ba ñu jotee it notification dañ ko da ñetti fan rek la waroon durer est-ce it ñetti fan yooyu moom mat moo tax ñu ubbi ko. waaw ñett ñetti fan yi. xam nga mm. ñetti fan yi. Euh, dañu ñëw dañ def du 4 au 12. Mhm. wan dañ ne woon dañuy nettoyer marché bi yeesal ko defar ko. d'accord waaw loolu lañu waxoon après ñu ne dañ koy prolonger. Mhm. defaat beneen arrêt. wante ñun dañ jàpp na ñun suñuy xeex pour zéro cas ci commune bi. Mhm. bu si jiitu ñun ñuy acteurs yi dañu war a taxaw ànd ak institution bi. dëgg la ànd ak suñu mhm. parce que su nekkoon commerçant yi su biir HLM nañuy yeewoo amul benn problème su nekkoon marché bi day jaay ay lekk. amul benn problème wante marché bi ay téer ñoo fa nekk mhm. ay baana baana ñoo fa nekk ak ay dàll ak ay saak nañ fay jaay mhm. te jamono ji avec covid 19 bi ak pandémie bi ak soxlawuñu loolu la soxlawuñu ko te jàpp nañ ne war nañ mën a tëjaat marché ba ci kanam d'accord waaw waaw Moussa Sow maa ngi lay nuyu te di leen encouragé ci jéego yooyu ngeen di def mais bu weesoo marché HLM boobu noonu nga xam ni yéen a ngi am euh, benn taxawaay ci wàll boobu ci Covid bi ak euh, jamono ji soxlawu leen ko comme ni ngeen ko waxee waaye tamit am na ñu ko soxla ndaxte ñoom ñu ngi foofu mooy seen bërëb yi nga xam ne fa la ñuy daanee seen doole pour yóbbul seen njaboot benn ngi noonu ci côté boobu noonu est ce que yéen a ciy mhm. bàyyi xel beneen bi tamit est ce que am na yeneen i euh, jéego yoo xam yéen a ngi koy def en tant que jeunesse ak tamit lëkkaloo ngeen si ak as yu nekk biir HLM yëpp parce que ñu ngi wax sànq li nga xam moom mooy as yi mhm. Mhm. pour ñu am benn tànk ci Covid bi waaw waaw loolu moom euh, pour wax dëgg rek te yàlla tax malgré ASC yëpp amul jamono ji mouvement nawetaan yënguwuñu mhm. wante ñun ñëpp ay acteurs nañu pour pour te dire vrai ASC mouvement yëpp jug nañu lëkkaloo doon benn pour veiller lu jëm cité bi def ay action yu macha allah yoo xam ne pour HLM rek mm-hmm. am zéro cas mm-hmm. beneen bi ñu ngi am benn liggéey boo xam ne ñu ngi koy def si au niveau note circulaire bu jugee si état jaar préfecture ba si gouverneur mm-hmm. ak délégué de quartier yi ak lieu de culte yi pour lu ñu war a séddalee lu jëm si dund yi ak yenn yenn yenn euh, vivre yi war a jóge si kii bi loolu rôle ASC e ñu ngi koy matal ba sànq mooy wax ak yow nii si loolu lañ nekkoon du recenser pour jël suñu matukaay. waaw. Mm-hmm. alors lu jëm ci distribution yi foofu est-ce que am na ci transparence parce que ñu bari seen euh, jàqare mooy euh, bu yëf yi ñëwee ñi ko war a jot du ñu ko jot est-ce que ci commune HLM yéen a ngi veillé ci loolu. waaw loolu moom la dañuy lancer alerte encore parce que dafa am ñaar yoo xam ne ñun dafa am lënk-lënk bu ci am. Mm-hmm. la mairie de HLM su amee lu mu dégagé. les autres communes dañu am lu ñu dégagé teel ku distribuer pour population mun si jot bokkul ak bu état bi wante bu mairie HLM dañu ne génne nañu tel budget mhm. wante ba tey ni population bi gisugu ko dégg naa ak toog naa nañ ñu see tollugum mhm. léegi dañuy bañ ñaar yooyu indi problème mooy bu war a jugee si mairie bi ak bu jugee si état bi mhm. léegi nag ñun ñu ngi siy veillé en tant que mouvement d'alerte ak association yi ak suñu délégué de quartier yi ñu ngi recensé du dugg si biir kër yi du leen xamal bañ leen dig dara bañ ko def yëpp politique. Mm-hmm. wante dafa am ay rënk-rënk yu si am parce que di nga si benn kër benn di nga fa fekk deux ménages à trois. Mm-hmm. wala nga dem benn benn benn kër nga gis fa A ak B. Mm-hmm. waaw yooyu yëpp nag euh, état war nañ si mën a dimbali mënuñ su leer la gën a communiquer sur loolu. parce que ñu bañ a def ko affaire partisan wala affaire yaama neex wala. diw diw diwuloo ci wante pour quartier bi kese la pour gox bi la pour population bi la mhm. ñëpp noonu lañ ko war a defee ku am looy dimbali nag ñu ngi ko dimbali sa waa koñ dimbali ko sa waa kër soo mënee yegg yegg feneen mhm. waaye lu war a jógee si état bi ak commune bi dañuy sàkku si mairie bi ak responsable politicien yi fi nekk ñu bañ ci def ko affaire partisan d'accord waaye lu jëm ci wàllu sensibilisation bi ci askan wa nag fu ngeen ci toll waaw ñu ngi siy def ay jéego yu yu bari bari bari wante lu ñu tiital. Mm. te muy doon dëgg. Hmm? mooy lii crante bi crainte bi nañ am avec l'ouverture du marché. Mm-hmm. population yéen daal marché bi bëggoo leen woon ñu ubbi ko léegi. waaw population HLM ànduñu si. Mm-hmm. parce que le maire il est là pour la population. ñun ñoo ko fi teg suñu nee lii bugguñu ko bugguñu ko parce que cas communautaire yi lu xew ji ëllëg ils seront responsables. Mm-hmm. waaye parce que mënuñu lu ñuy liggéey du am lu ñuy taxawee jeunes yi dugg ci kër yi du sensibiliser du jël ay gants du maye du maye ay masque du jël ay ndox rox du ko teg chaque coin de rue. Mm-hmm. kon am na xam ne suñ fa tollee ñun ñoom dañu war a accompagner. Mm-hmm. jàppale ñu su liggéey bu ñuy def nii parce que balaa ngay laax euh, balaa ngay. xam na am na balaa ngay laax laax jaay da ngay laax lekk ba pare lekk waaw ku si nekk soo yemee si HM5 kii yem HM4 kii yem HM4 mm-hmm. def liggéey bu mag yàlla dinañ suturaal dimbali ñu ba mbas mi du dugg biir HLM. incha allah yàlla bu mu fa dugg ñu ngi lay jaajëfal bu baax Moussa merci merci. Mhm. jërëjëf alors euh, Pape mu nekkoon Moussa saw bokk ci membre HLM commune. Mm. Ah, dégg nga li nga xam ne wax na ko ci lu jëm ci wàllum xeex Covid 19 beeg euh, séddale denrées alimentaires yi. waaw ah, li mu li mu wax day ci côté marché bi premièrement. Euh, moo leen jaaxal man dina ma jaaxal dina la jaaxal dina jaaxal keneen bu fekkoon ne ñun dañu fa dëkk. Mm-hmm. parce que marché HLM ku ko xam xam ne béréb boo xam ni li muy dajale ci ay doomi aadama ku nekk da ngay jóge fu ne am na ñoo xam ne dañuy jóge ci ay région sax ngir rek ñëw marché HLM. jënd fa mm-hmm. ay bagage léegi nag moment bi nga xamante nii xëy na autorité yi jël nañu ay fan tëj ko. pour mbir yi xaw a dal. Mm-hmm. wax nañu kaa cas communautaire moo leen xaw a tiital mais sa boobu ca boobu. marché bi ni ñu ko tijjee. tijji yeneen marché yeneen marché yëpp ngay dox ci heure bi mu war a tijji ak heure bi mu war a tëj. waaye tamit beneen mbir bi nga xamante ni tamit moom laaj naa ko sànq est-ce que bàyyi nañu xel ñi nga xam tamit dañoo toog seen kër marché boobu noonu nga xam ne ku ci nekk am nga fa cantine mooy bërëb bi nga war wutee weccet yóbbul sa njaboot pour ñu lekk. te mhm. xam ne jamono instant nii euh, metti na. Mhm. kon boog nañu jéem a xool rek nu mu gën a rafetee rek ñu gën cee liggéey ak ñi nga xam ñoo nekk ca marché ba ak les autorités. Euh, ci côté dimbalu tamit euh, wàllu kii bi mm, muy dund gi ñu ñu war a mhm. dimbali nee na ñoom ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan bëgg nañu mu mu mu mu ànd ak transparence mu ànd ak transparence macha allah waaye fi nga xam ne mooy doy waar nag kër boo xam ne da nga fay dugg mhm. am mu am a ah, mu am bee wala nga fekk fa ñetti famille mhm. loolu naka lañ koy réglé xëy na ñoom ak autorités yi di ngeen xam naka la ñuy defee dispatching d'accord Youssoufa Niang mu ngi ci ligne bi di responsable apériste foofu ca Grand Médine Youssoufa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu Ngoné di nuyu waa Sénégal di di nuyu internautes yi leen di seetaan yëpp waa Sénégal. Mhm. Euh, noo dundee jàngoro bi di coronavirus bi nu ngeen koy dundee. waaw nu ñu koy dundoo mooy sant yàlla remercier le président Macky Sall ak acteur de santé yi nga xam ni wax dëgg yàlla ministre de la santé ak équipe bi mu àndal yëpp. Mhm. depuis boobu léegi di conseiller nit ñi di jël matuwaay yi nga xam ni dina permetre Sénégalais yi mucc ci mbir mi. Mhm. waaw donc loolu barrières yi rek moom la ñuy respecté di ñaaxaat nit ñi ñu bañ a naagu comme que ñu ngi gis feneen mi ngi metti te fii mi ngi xaw a équilibré mais ñu sant yàlla bu baax te gën a góor góorgóorlu mooy jur rassemblement yi